Baba mbam mi lum la jaral mbam mi lum la jaral ngonk la de waaw ah yàlla na mbam dëgg de balaa mu baax fay bañ boole ko matt di bañ machine bañ seret waaw ah, loolu de baax na si mbaam mu bañ machine bañ seret xamar ñu ngi lay nuyu di leen siyaare baax a baax a baax ndax Modou Mara wax na ko ci biir waxam kattan wërsëg mën naa du lay maye kattan joxe kattan mooy lekk lu ñuy bayee ci réew mi tam waaw waye nak cher na ndax mbam juróom ben junne doon si juróom ñaari junne fa faneeri junne ñaar fi sax 800 su ko defé kilo gété kilo mbokk dellu fam mu katan xam doole xam lu Modou Maram doon waxtaane inshallah allah bu yo xapati waté ngay yo xapati bu maté da yo ko jégué da nga xapati man nag kii ma ngi ni dama dem salum ni waaw ma ngi dem salum ni inshallah allah kër ga sama ñaar rak yu mo bokk ndé ak bay dañuy jël te endo bi khamis la dama fi amoon soxla yoo xam ne mënutoon xaar quoi moo taxoon ma ñëwoon démb démb fi ay vingt trois vingt vingt vingt deux heures la ak si bi Cawa Diagne mbam mi lu la jaral mbam mi